barhamu baun waraun alifun thumma ha mi mun mujjël faydu tiijaan jox ñu ñuy naan alhamdulilahi salaatu wasalaam ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu gannaaw bu ñu sante yàlla julli seenant bu tedd bi ñu ndokkeel suñu bopp di leen ndokkeel si weer yu ñu génn yëpp weeru rajab nga xam ni mooy judd Mawlana Cheikh Ibrahima radiallahu taala anhu bokk si ñeenti weer yu gaa yàlla gën di màggal ñu dugg si mois de avril nga xam ne mooy weeru yonent bi sallallahu alayhi wa si milaadi Mawlana Cheikh Ibrahima jàppoon ni nañ ko màggal si hijriya wante nañ ko màggal itam si milaad mu jox ndigal ay taalibeem ñu koy gàmmul at bu nekk le 20 avril 20 avril boobu nag mi tombeek juddu yonente bi sallallahu alayhi wasallam si milaad yi alhamdulilahi suñ sëriñ muy Mawlana Cheikhul Xayri moom itam toppandoo toppandoo rek lay def Baye Niass bëgg Baye lay def bëgg Baye la def di ko toppandoo mais lépp lu bàyyi su sunnaaloon du ko bàyyi gannaaw moom itam gannaaw bu ñuy màggalee si njëlbeen 30 avril mu doon gàddaayam bu mu jógee Matamolana ñëw Boubacar 1998 dafa wax nañu ko toxal indi ko si bés bu bàyyi ñoo si jàppaloon ay taalibeem Ndakaaru muy 20 avril yàlla may ni ñu dem nañu siyaare dem nañu bokk ak moom 20 avril Boubacar mu joxoon ñu ndigal nag ëpp na ay at ñu defee munaasaba 20 avril bi Boubacar mu joxoon ñu ndigal bu ñu ñëwee dakaar moom ak gàmmu jëppal bi yëpp nañ leen boole defal leen ismu mooy ñu ngénti leen ren mooy suñu douzième édition ñu ngi si sant yàlla bu njëkk dañ doon seet date bu ñu arrangé rek ñu jàpp gàmmu gi mois de avril 3 avril

ñu ngi wax xaasatan taalib Cheikh Ibrahim yëpp ñu fekkee si gàmmu gi incha allah taala yàlla ak yonent bi ak Cheikh Tidiane ak Cheikh Ibrahim Niass lañ fiy waxtaane Pam Mokhtar Diouf oustaz Pam Mokhtar Diouf moo koy taxawee comme ni mu ko doon taxawee at yi yëpp moom dana waxtaan gannaaw su mawlidee ba pare boo wax yenn si jikko yonent su sallallahu alayhi dana waxtaanee alhamdulilah daan mooy place jigéen. ak xale ci diin lislaam gannaaw moom oustaz Aliou Cissé dana waxtaan si lan mooy yoonu suufiyanke te lu jar leeral la parce que ñu bëri dañu yaakaar ni suufiyanke bidaa la gannaaw moom oustaz Mouhamdi incha allah Mouhamdi Diop dana waxtaan si mooy fayda su daañu jox alhamdulilahi ñëpp ñi nga xam ni bëgg nañu wax mu muqaddam yëpp daañu leen jox kàddu man danaa waxtaan incha allah pour tëj gàmmu gi. ñu ngi ko tuddee nag suñu xarit si yàlla te mu wàññeeku muy cheikhul ay ba nekkoon loxo ndey jooru Mawlana cheikhul xayri nekkoon jàmbaar bu ko doon liggéeyal nekkoon itam ki nga xam ni moom moo ko doon nëbbal ay mbóotam yëpp mbootu biiram yëpp cheikhul ay ba xamoon na ko yal na ko yàlla xare ajana ak soxna faatu Gueye nga xam ne soxna la si tey baax tey bokk si jamaa bi yàlla dogal mu wàññeeku moom itam gannaaw bu ko yàlla mayee doom doom boobu mu bàyyi fii yan na ko yàlla dundal def ko jullit def ko boom ba sëg def ko taalibi Cheikh Tidiane def ko taalibi Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu gannaaw ñooñu nga xam ni dañoo wàññeeku gàmm bi ñu ko tuddee suñu ay soppe suñu ay doomu ndey suñu ay xarit suñu ay dëkkandoo fële si Podor

bakkan bañ si bokk comme nu mu den mel at yee passé yan nañ ko yàlla may yan nañ yàlla may at bi ren dàq ak yeneen at yu ñëw yi itam at bu si bu ñëw rek dàq at bu at bu passé bi ñu ngi koy def nag si ndigalu Mawlana Cheikh Ahmed Tijani Niass nga xam ni moom mooy xalifa Baye Niass tey si faydu bi ak si ndigalu Mawlana Cheikhul Xayri suñu xarit suñu sëriñ Mouhamad Kouraychi Niass incha allah taala dana fekkee gàmm gi comme nu mu doon fekkee yeneen gàmm yu paase yi ñu ngi ñaan yàlla képp kuy ñëw yal na la yàlla wëttu ba nga ñëw si gàmm bi ànd ak dal ak teey dellu ànd ak dal ak teey bépp xaaju bu fa nit wut si bu mooy yàlla yan na ko yàlla dugal sa loxo bépp feebar bu fa nit indaale yan ko yàlla saafara si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Ahmad Tijaani Chérif radiallahu taala